Gestoulma TRTP di Touba réalisation travaux publics waxal rek la nga bëgg ñu naataal la ko ci ab plan daal di la ko jëmmal xar kanamu tabax bi su àggeeb na muy mel bépp tabax bu way bëgg rek dana la ko liggéeyal ci ab plan boo xam ni dana baax lool yanju lool taaru lool te yéemu lool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 touba rtp com ak ci seen page Facebook entreprise touba réalisation travaux publics moom rekk la di soññ sama bopp rek di soññ mbooleem jullit yi rawatina ci nag ñi nga xam ne ci sëriñ bi dañu aju soññ ji nag weesuwul góorgóorlu bu baax rek eh, gën a fonk suñu diine gën a fonk suñu diine eh, ji jéem a gën a xam sëriñ bi ba gën a mën a fonk suñu taalibe loolu lépp nag eh, mi ngi ci góorgóorlu rek mu góorgóorlu bu baax ci gëm ak jéem a xam dafa mel ne lu mu naqari suñu bopp rek eh, suñu gëm mooy des ak suñu ñàkk a xam kon nu góorgóorlu bu baax ci gëna a fuglunte ak sunu bopp ak sunu xol sunu xel lépp jëme ko ci gëm sunu yitte jëpp itam ñu gën koo jëme ci xam loolu rekk eh, sunu wartiif muy jaamu yàlla li nga xam ne moom rek moo fi indi loolu góorgóorlu ci fug leen teg sunu bopp ci gën gi dolli sunu gëm nu góorgóorlu ci loolu bu baax tey jéem a xamit nag waxtu wu nekk yaar yooyu nu waru dañ cee war a këpp suñu lépp nu ko mën a boole itam loolu moom moom moom lañ war a jiital ci suñu lépp gëm suñu borom te wéetal ko ci lépp te la ca dolliku mooy sant suñu borom sax fas yéene sax dàkk ci jaamu ko kon gëm yàlla wéetal ko sant ko sax dàkk ci jaamu ko loolu mooy li nga xam ne mooy moo moo moo gën ci nun ndax loolu moo nuy may muccuk tey moo nuy may muccuk ëllëg moo nuy taxa mën a defaru defaru tey gu ñu ëllëg ci nu mën a yéegi ak texe itam suñ dundu àdduna suñ dundu àllaaxira gënu jëm kon loolu rek mooy li ci gën a am solo man ci góorgóorlu bu baax a baax a baax a baax di gën a sant nag sëriñ bi rek ndax xam nañ ne fàggal nañu lépp lu mat a fàggu lu nuy jëriñ tey ëllëg lépp fàggul nañu ko fan yii nag eh, amoon nañ tawfeex ci soññ suñu bopp ci lu jëm ci eh, ormaal dëkk bi ak sellal ko ngir borom dëkk bi waaye alhamdulilahi rabbil alamina daje nañ ceeg tawfiq ndax yëg nañ ne ñu nu ko bokkal nu sequ ko yëg nañ ne noo ci bokk yitte mel na ne loolu ñépp gone yeeg mag ñeeg ndaw jigéen ñi ñépp feeñal na loolu loolu nag suñ tawfeex ju gën gën a dolli ko rek suñ tawfeex ci sëriñ bi rek la juñ ñuy dolli ndax li weesu liñ ci war a wax lépp waxees na ko taxawaay biñ ci war a def yépp kilifa yi def nañ ko ah, dafa fekk na nag waxtu wu ne nit dafa war a eh, soññ boppam ci li ko war kon dara ëppul ëppul suñu ci suñu suñu wartiif dara ëpp ca ormaalal sëriñ bi dëkkam bii te lépp nu lu nu ci man suñ kem kàttan ba dëkk bi gën a mën a sell nu góorgóorlu ci bu baax a baax ndax euh, ku ne xam ne dëkk bi ni mu demee ci sëriñ bi kon gannaaw jaamu yàlla ak liggéeyal ko ci suñ lépp ci lépp lu baax war na noo bàyyi xel nag dëkk bi ndax yitteel na ko lool ñor na ko lool te fàggu na fi lépp lépp luy lu baax ñaan na ko fi boromam te defal na ko fi lépp luy safaan mus na ko ñaan na ko borom mu daqal ko ko fi kon li mu li mu bëgg moom boroomam defal na ko fi te day gën a feeñ dëgg la àdduna moom ak baaxam àdduna moom ak nu muy doxee loolu moom wàllu boppam la àdduna moom du jag te kenn mënu ko jagal waaye li sëñ bi bëgg moom dana am ci dëkk bi li ci dalal suñu xel nag mooy tawfeex ju ñu am ba soññ sunu bopp soññ ñeen ko séqal ñu ko bokkal ci ormal dëkk bi ak sellal ko ñépp yëgandoo ko muy gone yi muy mag ñi muy góor ñi muy jigéen ñi ñépp yëgandoo loolu loolu lu lu waroon na lu doon dox bay am lu ci war a feeñ ci jamono jii ne dara ci leen weesu dara manqué liñ ci war a wax lépp wax nañ ko li ci war a taxawaay taxawaay bi ñu war a taxaw yëpp taxawaay nañ ko waaye sëñ bi la laay li pàggute fu sëriñ bi nag ginnaaw ci biir adduna la lay dox faw nag dañ day lépp daan ko gis xëy na buñ ko gisanduwul benn yoon itam lépp li mu fa fàggu lépp te bëgg ko ci dëkk bi daan ci teg suñu bët wala comme fi fekk da ci teg si bët waa dox waaw doxin bi demee noonu nag adduna moo doxee moo moo moo demee noonu kon euh, ci jamono yii war nañoo sant ñun ñëpp ndax tawféex la rek tawféex sëriñ bi rek yu ñu gàttandoo la kon ñun ñëpp muy muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw ci yëg-yëg bi nga xam ne am nañ ko ci fan yii jëme ko ci warmaal dëkk bi ngir sëriñ bi warmaalal ko dëkk bi lal ko dëkk bi loolu te loolu tawféex yooyu ñun ñëpp ko bokk kon nan sant bu baax a baax a baax a baax a baax te nag. nu nu nu nu def ci suñu yépp suñu lépp suñu xel nañ koy bàyyi xel def ko ci suñu xol mu yit mu def ko ci suñu yitte suñu kem kàttan loolu xaas joo xam ne sëñ bee ko suñu borom moo ko defal sëriñ bi kon war na noo xam xaasam xaasam te def ci suñu kem kàttan lépp sax diggam ak boromam la lépp lépp lépp lépp noppi la mënuñu ci dolli dara waaye nag suñu wartif ci moom nu gën góor góorlu ci bu baax góorgóorlu ci bu baax sax ci jàmm yàlla suñu képp kàttan sax ci liggéeyal ko ci suñu lépp ak lépp lu baax te fonkal ko nag dëkkam bii lal ko ko sellalal ko ko loolu tawfeex ji nu am ci jëm fan yi ñu dolli ko ci fan yi bu nu góorgóorloo ba mu ba mu wéy suñ lépp ci defaroo bii rek bi ti tey kon noonu rek la demee eh, nanu góorgóorlu nag ci li nga xam ne moo nu fi mu jàmm yàlla sëriñ bi da cee def diggam ak boroomam diggam ak yonent ci da cee def loo xam ne jenn menn mbindeef mënu ko weesu menn mbindeef mënu ko weesu kon te du woon dara lu jaamu boroomam ci léppam liggéeyal yoon liggéeyal yonent bi ci léppam sax ca dàkk biñ ko gisee ba biñ ko noppee gis ci loolu rek la nekk waaye nag alhamdulilahi rabbil alamin noo am tawfeex nu yàlla boole nag moom mu bàyyi nu fi nu nekkal ko fi kon lim nekkoon amul lu am lu ñuy jàng lim nekkoon dañ ko ci nekkal suñ kem kàttan suñ kem kàttan moo xam ñi jëm ci sariya la moo xam ñi jëm ci xaq la kon te loolu lépp tënk bi moo di taalibe taalibe moo yoon wi gën a gaaw ci suñu digganteek ak suñu borom moo tax ñi mag ñi jëkk a topp sëriñ bi te yàlla rekk tax leen a jóg ñu fekk ci lañ bëgg lépp ak ak ak ak lu kawe seen jot ak lañ leneen lañ ci xamul ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo tudde jë euh, yitte jooju ak taxawaay boobu ak jëf jooju mag ñi ñoo ko tudde ak bi mag ñi ñoo ko tudde ak taalibe kon taalibe lépp ngi ci biir waaye nan góorgóorlu ba ma nekk ay taalibe dañuy góorgóorlu ba nekk ay julli dëgg ay julli dëgg ay julli dëgg ba nekk ay taalibe dëgg ay taalibe dëgg dëgg la ñu doy di lañ doom am nan doy di doomu aadama yàlla suñu coobare coobare suñu boobama ci ci xereñam moo xam ne mu ko defee waaye nag du tee nanu góorgóorlu nanu góorlu ci li leen fi sëriñ bi bàyyil jàmm yàlla rekk la fi bàyyil ak liggéeyal ko ni mu doon liggéeyal yonent bi loolu nañ ci góor góorgóorlu bu baax moo nuy dimbali liggéey boobu nu koy liggéeyal loolu moo nu ci moo nu moo nu ci dimbali ci gan ci gan anam dañuy dañuy góorgóorlu ci defaral ko sunu bopp lu ci mën suñu kem kàttan ndax bala ngaa mën a defar da war a defaru ba noppi boo dee joxe itam te ñun dañu baaxoo dañu joxe joxe suñ suñ lépp dañuy góorgóorlu suñu bopp jéem di defar suñu bopp diñ koy jéem buñ ko yéenee eh, ah, ah, muy suñ pësteef muy suñ yitte lu mu jafe-jafe dana yomb waaw nan jéem dooni jullit dooni taalibe ci lii nu li lii nu fi sëriñ bi bàyyil bàyyil nañu fi lépp kon nanu góor góorgóorlu bu baax ci suñu bopp ba ba ba defar suñu jéem a defar suñu bopp ba gën ko mën a liggéeyal liggéeyal ba gën a sell loolu rekk la loolu rekk la lu nu naq gannaaw ba lu nu naqari suñu bopp danoo danoo sàggan ju ko wàll rek lu nu ci naqari suñu bopp rek muy ci biir mu ci bitt danoo sàggane kooku wàll rek waaye buñ ko sàgganewut taxe bi guna adduna fitnay kese la fitnay kese la ku ci ko xam ne adduna rek la moo ci nga nekk moo la tax a jóg doo am jàmm mukk waaw te ñàkk jàmm gi fii mooy moo moo moo moo mooy jàmmi ëllëg mooy jàmm mooy ñàkk jàmm gi ëllëg lu nu gën a góorgóorlu ci loolu gën a am jàmm gën a moom suñu bopp ba mën a jox lu joxe suñu lépp noonu rekk la demee lu ndax naqari suñu bopp buñ ko jooytoo kenn nan yedd suñu bopp te soññ suñu bopp te gën a góorgóorlu ci li nga xam ne moo nu jig leneen jigunu nekk ci li nu fi sëriñ bàyyi rek dara jigunu dara jigunu ci biir dara jigunu ci bitti dara jigunu loolu loolu waaye buñ ca góorgóorloo lépp ki nga xam ne mooy def di dindi moo ni nekkal mooy nekkal sëriñ bi ci noonu mooy nekkal bi ci noonu ndax moom moo nekkal sëriñ bi kon buñ ci góorgóorloo mooy nekkal sëriñ bi ci noonu waaye nag il faut nu def suñu képp kàttan bu ñu defee suñu képp kàttan rek ñu wallu nu wombat nu noonu rek la deme sëriñ bi diggam ak borom diggam ak yonent bi kenn mënu ko cee jiitu dangeen fay daje rek kenn mënu ko ci jiitu loolu ku xam sëriñ bi ku am tawfeex xam sëriñ bi danga nga xam loolu kon war na noo wuuf suñu bokki jullit yépp war na noo wuuf suñu bokki jullit yépp won leen sëriñ bi sëriñ bi ku ko xam rek kooku ko xam ne jëriñu ci noonu rek la demee nag jafe-jafe yi yépp daara suñu sàggante rekk la ak ñàkk nekk ci suñu war suñu wartiif ku ko xam da ngaa sàggan nag nekkul sa wartiif loolu daal bu ko jaay bu ko jàmbat kenn na koy muñ rek dañ boo bu la yàlla ñaan yàlla ñaan yàlla kenn ku ne sa diggal sa borom bi daal dox fi nga ñaan yàlla mu wallu la teg la ci yoon wa waaye ni àdduna demee moom la baaxoon sax naka jekk jaam ñi àdduna àdduna jiital na leen jekku na leen ndax taluñu yàlla taluñu alaaxira nun taluñu talatuñu talatuñu yàlla talatuñu alaaxira ndax jiital bu nu ji àdduna jiital te jekkunu loolu rek la demee waaye lu nu gën a lu nu gën a lu nu gën a lu nu gën a teg fee àdduna teg fee du demewut noonu teg fee àdduna mooy sa yitt sa sa sa yitt yëpp nga jëme ko ci sa borom nekk ci lam la digga sa kem kàttan daw lam la tere sa kem kàttan nekk ci lam bëgg sa kem kàttan nekk daw lam la mu bañ sa kem kàttan nga sax nekk ci sax sa dakk du tee fa tabaarakallaahu wërsëg yàllaa ko jaam yàllaa ko moom te du jeexal moo koy jaam bu ne am na wërsëgam kenn mënut a dox si diggante ba fu toogoon kon si loo xam ne wërsëgam dana koo fekk bu dee dara jot ko dana ko jot ak lu mën a doon lu mu mën a doon ci lu mën a doon xéew ci xéewal kooku yotun yoon nekku ci yàlla nu ko moo ko moom nu ko amee te wul dara te jeexlewul dara bu bu nekkee ci lii war a nekk moo nu nekkal ci suñ lépp lan waa adduna ji wut seen adduna buñ ko nekkalee dañuy am da da da mën na mën na mën na dem ba ba ëpp leen ko te ñoom duñ ko jariñoo te nun dañu koy jariñoo te duñ yàqal dara ëllëg ba lu leer la lu leer la lu lu jafe wuti ja xam ñaa ñàkk xam rek ñàkk xam ñàkk gëm ak ñàkk xam waaw yàlla ñu si yàlla musal lu nu dal rek ñàkk gëm ak ñàkk xam lu nu dal rek ñàkk gëm ak ñàkk xam nanu góor góorlu ci lu nu taxal lu nu may ngëm luy wéral suñu ngëm nañ ca góorgóorlu lu nuy tax xam nañ ca góorgóorlu noonu rek la demee du dara du leneen maa ngi jéggulu jërë ngeen jëf jërë maa ngi sant euh, sant gi ma doon gi ma juñoon nag ci li weesu ci gannaaw li nga xam ne moom taw leen taw feex ji nu am ngeen dégloo soññi bi ma doon soññe taw feex ji ma am ba ba ba ba ba yëkki sama kàddu di ko soññe ki dama dama dama ko ñi ñi taxoon ñi ñi tax ma di ko su ñi ñëpp rawatina ci ñi ñi ci biir biir dëkk bi dama ko fekk ci ñoom loolu nag nañu xam ne maa ngi leen di sant sunu borom waxuma la ma di leen sant ci taxawaay bii jamono ji fii nu nekk fi nu toll cant bu réer réer laa leen amee waaw dama leen di gën jëkk sant sunu borom jëkk leen sant Serigne Touba mii mu xam ne mooy suñu lépp te tawfeex jooju moom lépp def defuñu ci dara kon nan sant yàlla ci tawfeex jooju nan sant yàlla ci tawfeex jooju jóg jóg jógul jóg fas yéene liggéeyal Sëñ Tuubaa waaw nan jóg fas yéene liggéeyal ko man na yem fam na yem loo ndax moo ne abdul abdulillahi wa xadimu li rasulihi di jaamu yàlla di liggéeyal yonent bi noonu it sañ nanu nag di jaamu yàlla ndax doonu suñu bopp dara waaye di ko liggéeyal li mu doon liggéeyal yonent bi suñu kem kattan